salaamaaleykum yéen a ngi si Guédiawaye info point com tey jii ñu ñëw stade Amadou bari pour fekkee classico bi nga xam ne ñëpp ko doon xaar classico zone 4 donc ñu ngi fii stade Amadou bari classico zone 4 entre l'ASC Djigo ASC boo xam bu mag xam ne ASC bu mag daaw mu jël mu jël compétition bi compétition zonale bi ak ASC Bokk Jom bi nga xam ne kenn du ko présenté di avec ses 21 titres ses 22 titres zonales donc tey ju ngi fii Guédiawaye Mbaye Prési aussi match bi nga xamna match classico bokk jom djibo donc ñu ngi coach bokk jom bi donc coach avant match bi di démarrer lan moy sa réaction. mais sama réaction moy euh, déjà xam nga waa joy mom dañ ko def euh, classico mais déjà man classico damay xol équipe yu bokk euh, statut ah, équipe yu bokk si même catégorie mais bokk wuñ si même catégorie quoi si sama vision si sama statistique. parce que booy xool si statistique bokk jom mënu am 22 trophées à 23 djibo am 6 trophées à 5. Nous euh, avons a boole euh, non même catégorie quoi mais n'empêche aussi euh, derby la parce que nous avons des derby et puis ñelee ko derby ah, mais nous sommes dans le sérieux avec beaucoup de respect dans la sérénité avec beaucoup de concentration jouer avec beaucoup d'intelligence objectif comme nous avons ko nous avons 4 points en tête donc dañuy def le tour positif c'est-à-dire que nous euh, ñu qualifier essaie de marquer des buts euh, dans le camp contraire euh, ñu ñu bu ñu amee ñun bi tam euh, baax nañu ah, tout en étant prudent aussi parce que comme nous ni ñu ko comme ñu ne juboo équipe bu mag la ah bu nekkee équipe bu mag nag xaw bokk jëm lan la war ok merci coach donc ñu lay wax bon match. merci merci nekk leen si ok. <laughs>